ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit ak mbokkam muy nuyu bu sell nuyu bu lislaam génnaaw suñu nuyoo nag mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu yóbbulu ndaw ñi suñu jataay bii weesu kon njàngale woon nañ julli ak la ca aju ak taayo ju njëkk ji ak taayo ju mujj ji kon nag tey suñu jataay ab tey dañuy tàmbalee ci kuy julli bu dee dañu lay jiite ka lay jiite bu dee tari ca kaw kon doo tari dara doo wax dara dangay ngay teewlu la muy tari bu dee tari ca suuf nag yow nga tari la nga war a tari kon képp koo xam ne dañ lay julli da julli sa imaam bi lay jiite di jàng alxuraan di ko tari ci kaw kon jamono joojee muy jàngee alxuraan di ko tari ci kaw yow dangay ngay teewlu alxuraan jàng muy jàng di ko déglu te bañ a tari dara bu dee day tari ci suuf nag yow nga tari la nga war a tari ci suuf yow it loolu nag sukkandikoo nañ ko ci ngir imam malik jëlee nañ ko ci alquran tamit mu wax ne wa ida xuri alquran fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun kon jëlee nañ ko it ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy lu wér kon loolu mooy ki ñuy jiite imaam di tari ci kaw wala muy tari ci suuf bu dee nag jigéen day julli jigéen moom ak julleem lépp ci suuf la koy tari la tàmbalee ci liqaam ja ba ci biir julli gi ba julli gi jeex lépp ci suuf la koy tari kon jigéen moom baatam ci kaw xawra la moo tax kon léppam ci suuf la koy tari kon nag loolu dañ ci xamee ni jigéen wër te yëkkati kàddoom ci kaw góor nag bu dee day julli lu mel ni jullik suba ak timis ak gee lu ca nekk ci julli yooyee ñaayu ràkka yu njëkk ya dafay tari faatiha ak saar daal di koy tari ca kaw kon julli yooyu ma lim julli bu ci nekk rek ñaari rakka yu njëkk ya faatiha ak saar lay doon te danga koy tari ci kaw kon bu dee góor suba ak timis ak gee lu ca nekk ñaari raa koy jëkkee da tari ci kaw julli nag boo ci nekkee waroo génne sa gémmiñ wenn ngelaw walla kàddu gu bokk ci biir julli gi waroo ko génne boo walee ci sa gémmiñ mooy wal sa gémmiñ walla nga wax ak kàddu sa gémmiñ gu bokkut ci julli gi te tay ko kon julli gi day yàqu ki lay jiite nag war ngaa bàyyi xel ci moom mi lay jiite li muy def mooy rokon yeeg sujjóot yeeg sigg yeeg lépp lu muy def ci biir julli gi ginnaaw dalay jiite nga bàyyi ko ba mu def ba dal nga door a def nga bañ di njëkkante ak moom walla nga koy defandoo ak moom rawatina nag allahu akbar ju njëkk ja muy allahu akbaru kàbbaru almal ja ak asalaamualeykum ji nga xamee ne boo ko waxee yeweeku nga ci biir julli gi maanaam mooy julli gi jeex na ñaar yooyu moom boo ci njëkk a def imaam bi lay jiite wala nga defandoo ko ak moom rek kon da xam ne su julli dafay yàqu kon loolu lu jar a bàyyi xel la ndax ñu bari yenn saa yi ñooy njëkk sigg siggi imaam wala ñu njëkk koo sëgg di ko mel ni kuy njëkkante ak moom te loolu kat ku ñuy jiite loolu warul la ndax heure boo njëkkee kabar imaam ci kabar bu njëkk ba walla nga jëkk ko sëlmal ci sëlmal ji mujj ja kon sa julli day yàqu kon nag lu jar bàyyi xel la ràkka bu mujj ci jullik suba ginnaaw boo jullee suba ba pare nga xam ne julli nga sa ràkka bu njëkk tari faatiha ak saar ci kaw sa ràkkaam ñaareel nga tari faatiha ak saar ci kaw ba pare balaa nga rokon am na ñaan gu ñu wax xunóot sopp nañ nga def ko ci rakka mujj ba ginnaaw boo jàngee faatiha ak saar ba noppi balaa ngaa rukkoo ñaan googu nag moo nekk nii may bëgg a tudd allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnuhu laka wa nahluhu wa natruku may yakfuruka allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa naxaafu azaabaka jiddan inna azaabaka bil kaafirina mulhiqun kon loolu mooy xunuut ci fi ñu mooy jullik suba boo jullee sa ñaari ràkka ràkk bu njëkk ba ràkk bu mujj ba ca nga koy taree lu njëkk ngay rukon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jàpp te rafetal jàpp mba def ko nam waree ba pare mu xool ci kaw wax baat yii sunu boroom na ko ubbil juróom ñetti bunti àjjana ya bu ko ca neex mu tàbbi ca kon baat yooyu mooy baat yi muy bëgg a tudd bismillah ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan sallallahu taala alayhi wa sallama abdahu wa rasuluhu allahumma ij'alna min at-tawwabina waj'alna min al-mutahhirina waj'alna min ibadika ash-shali'ina adxilna fi jannati wa ba wa baxidna min annaari allahuma salli ala wa ala sayidina muhammadin wa sallim baat yii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jàpp-jàpp ba pare te jàpp la nekk jàpp lu rafet mu xool ci kaw asamaan sa daal di wax baat yii suñ boom na ko ubbi juróom-ñetti bunti àjjana boo ci neex mu tàbbi kon nag lii lu am solo la lu jara bàyyi xel la kon mu mel ni suñu jotaay tey dañ ko yemale fii jotaay bii di ñëw ku ñu topp incha allah ni indi lii tojom jàpp ak lii waral sangu farata ak sangu farata ci boppam incha allah kon ñu ngi wàcce kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm di wax kàddu yi fi jub rek ci suñu borom la lu fi dëng ci suñu jëmm yu xeeb yi yii la in uridu ila al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal